mbokkeen technologie safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar Déthié Fall nekk xaritu Ousmane Sonko ñoom ñaan ñu ànd nekk ci opposition bi moom nag ma nga xam ne ma nga doon amal nemmeeku tuur ca diaspora ba nee na nag daf koy dakkal di 2 au 5 ndax moom dafay ñëw jàppale si xaritam frère am di Ousmane Sonko ci audition bi nga xam ne war na cee wuy ji le 3 novembre bii di ñëw loole nag nekk li nga xam ne moom Déthié Fall daal dina koy def comme acte de patriotisme moom mu ne li nga xam ne moo ñeel Ousmane Sonko ak lii di dossier bi dox ci diggante ma Adji Sarr dafa nekk loo xam ne dañ ko teg ngir daal di narmeel suñu ab démocratie moo waral nag moom en tant que patriot dafay ñëw daal di xeexle le président Ousmane Sonko ndax Sénégal gi ñoom ñëpp ñoo ko yokkute dañ koy bâtir te gis na ci Ousmane Sonko qualité yoo xam ne bés bu ko jàppalee dina nekk ji nit koo xam ne fu ne dinañ koy dégg ci réew mi ndax moom mooy le bon profile pour devenir le prochain locataire du palais de la République du samay kàddu kàddu yu ndaw ñu topp Ousmane Sonko la abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am xibaar yu wér te